yuy jàngale laaju ci mbiram jigéen maanaam yan àq jigéen am ak yan àtte la tëral ci moom loolu moom la ñuy jàng ci xaddis yi lenn ci atti yooyu la ñuy jàng na àtt yi aju ci wàllu jigéen bari na waaye daañu ciy leeral yenn loolu nag lu am solo la ndax annisaau shaqaayiqu jaale jigéen ñi ñooy genn wàllu góor ñi mboolem lu yàlla sant góor ci wàllu jaamu yàlla sant na ko jigéen fu góor mën a xegg ci ngërmande yàlla bu jigéen góorgóorloo xegg fa wala mu jege ko <clears throat> xanaa nu wóotu ak xutbaan yétu waaye lu dul ñaar yooyu rek jigéen mën na ko am te fatimatu bint rasul sax waxoon nañ na ci xutbaan yétu moom la jigéen mënul yéeg waaye lu dul loolu rek boo góorgóorloo yàlla mën na laa dimbale nga yegg ca kon wala jaamu yàlla góor ak jigéen ñoo ci am looloo waral it ñoom fexe bañ xam seen diine bu baax xam fa lañu teg seen tànk ak li leen lislaam may ak lim leen mayut loolu lu am solo la jaamu yàlla bu mag la jihaad gu rëy la <clears throat> ndax al ummu madrasatun yaay mooy école bi xale bi di njëkk a jaar balaa muy dem benn école di fa jàng dara ci yaayam lay njëkk a jànge école nag xam-xam dafa war a nekk kon jigéen ju ne dafa war a am xam-xam ndax mu mën a yar doomam ci lu neex yàlla waaye jigéen joo xam ne xamul lu ko yàlla sant xamul luñ ko tere loolu du ci mën a yar doomam nit ku nekk la nga xam ci nga yare kon jigéen du da war a toog rek waaye dafa war ak góor ñi ci wàllu jaamu yàlla ak ci jàng ak ci xam atteye yàlla tëral ci ñoom bal sax ñoom seen xam-xam lu for la ndax ñoo yar nit ñi benn jigéen ju baax mën naa defar lu dul jeex ci ay mindeef loo xam ne yàlla rek xam seen lim ndax bu yaree njabootam yar ñu aju ci ñooñu ñooñu buñ génnee danañ yarewaat bu yàggee société bi baax jigéen ñi bu ñu baaxee daal yaakaar naa ne lépp dana baax waaye bu ñu yàqoo bu lépp yàqut it lu bari dana yàqu <clears throat> war a ñu war a xam seen diine xam xaq yi leen lislaam may ak lim leen mayut darsu bi weesu nag jàngoon nañ ci ne jigéen toog këram moo gën ci moom muy génn moo gën nag tekkiwul ne génn nga dafa xaraam déedéet am na droit pour génn bu dee ci jàkk ji la jëm sax yonentu dafa aaye ñu di leen aaye dem jumaa jigéen bul dem jumaa ja julli ji loolu yonentu daf ko aaye ndax jàkkaa yàlla la jaamu jàkkaa yàlla kenn du ko aaye jaamu yàlla te jigéen ñi ay jaamu yàlla lañ dégg nga <clears throat> su ko defee kon am nañ àq pour génn doxi seen soxla am nañ àq pour liggéeyi am nañ droit pour dem ci jumaa jumaaya yooyu yëpp mën nañ koo def pour faji seen aajo ya waaye nag dàqwante wut ak ne toog seen kër moo gën toog seen kër moo gën it dàqwante wut ak ne mën nañoo génn suñ ko bëggee pour faji seen ajo ñu waxoon ne nag seen a génn foofu ñu teg ko ci ay charte bokk na ci charte yooyu wala boog boo bëggee tënk charte yooyu mooy lépp loo xam ne dafay tax yàlla mere leen ci génn googu wala meram yàlla xew ca dañ ko war a moytu nañ fexe ba ñoom buñ def bàkkaar ci génn googu nañ fexe ba buñ nekk sabab ci nit ñi di def bàkkaar ngir génn googu maanaam nañ sàmm seen bopp seen solin seeni waxin seeni defin seen jikko seen doxin ba nga xam ne dañuy génn faji seen soxla rek ñëwaat waaye lenn lu naqari yàlla du xew ci génn googu dégg nga su ko defee loolu bu ñu sàmmanteeg yooyu rek mën nañoo génn loolu mooy tënk bi weesu woon ci dars woowu ñaareelu dars bi nag ñu ciy jàngale ndax. Jigen joju buy génn soxla na ci ndigal wala soxla wut ci ndigal soxla na ci ndigal jigéen su fekkee am na borom kër borom kër moo ëpp àq ci moom kon su boobaa borom këram moo ko war digal pour mu door a sañ a génn bu ko borom këram digalut su boobaa dafa war a toog ci kër gi dégg loolu lañu war a jàng tey ci darsu bi ne jigéen buy génn soxla na ndigalu borom këram bu ko borom këram digalut mu war a toog su fekkee amul borom kër kilifa ga ko war a maye moo xam baayam la mbokkam la ku mën a doon kilifa ga ko war a maye moo ko war a may ndigal pour mu sañ a génn su ko mayu ndigal dafa war a toog ci kër gi kon jigéen sañu ta génn lu mooy ci ndigal ba mu des ñaari mbir mooy génn goo xam ne daf koo war soxlawut ci ndigal ndax loolu moom yàllaa ko ko sant mu war koo def su ko defut am ci bakkaar kon loolu keneen suñu ko ko aaye ñu ngi génn ngir aji aj goo xam ne aj ak farata daf koo war te am na ñu mu ànd ak maanaam condition yi lislaam teg pour mu war a génn yëpp mat na mu war a génn pour aji su boobaa kenn sañu ko aay soxlawul foofu ndigal wala mu war a génn ngir laaj mbiru diineem lam ci xamut kooku waru gar la ci moom jigéen ji mu def ko kooku soxlawul ci ndigal génn ziyaare waajuram boroom xam-xam yi wutee nañ ci ñi ne wut ci ndigal ñi ne soxla na ko ndax kat buñ ne jëkkër moo ëpp aq ci jigéen tekkiwul ne jigéen ji dafa war a dog waajuram yi ba faw du leen baaxe ah kay baaxe waajur farata la jog euh, euh, um, dëngee waajur ci bakkaar yi gën a mag la bokk kon topp sa ndigalu boroom kër du tax nag ñu ne na nga dëngee sa waajur dégg nga loolu la ba yéen la borom xam-xam yi wax ne kon jigéen mën naa génn ziyaare ay waajuram loolu teewu ko toppatoo boroom këram. ziyaare waajur pour baaxee ko rek la ñaari jaamu yàlla yoo xam ne benn yàqut morom ka kon loolu jërut jëwwut ndigal ndax ziyaare waajur daf koo war ñu ne déedéet ziyaare waajur bu koy def dafa war a tàggu borom këram comme que borom xam-xam yi noonu lañ ci wute <coughs> yow góor gi nga xam ne yaay borom kër gi war nga ko man a oyofal tuuti <laughs> bu fekkee dafa génn ngir ziyaare ay waajuram te condition yi mu war a génnee yëpp mat na sàmm na bu boppam mu ngay sol la mu war a sol xem na fa war a yem mu ngay waxee na mu war a waxee di defee na mu war a defee génn ziyaare waa juróom yeeg jëru taal jëru taal geer ba nga xamee am na ñoo xam ne nañ soxlawul si sax sa ndigal yow borom kër <clears throat> dégg nga kon su ko defee génn goo xam ne génn gu war la jigéen ji soxlawul ci ndigal amma su fekkee warut waaye la génn la goo xam ne nit ñi daawuñ ko aaye ci aada du lu aaye ni nga génn dem ci bitig bi jënd dara nga xam ne ñi garaawaluñ ko génn yu mel noonu bu koy jigéen di def soxlawul muy tàggu kenn ndax bàyyi giñ ko ko bàyyee rek bàyyi giñ bàyyi ñëpp di ko def te kenn garaawalul ko mooy wane ne may nañ ci ndigal aada moom mook charte benn la loo xam ne aada la koy def kenn du la aaye loolu boo ko defee mu ngi mel ne bu dee yow lépp loo war a da nga war a am ndigal waaye lii aada la kenn daawut ko aaye kenn soo ko defee rek mu ngi mel ne mel nañ la ci ndigal ndax boo ndax sa borom kër bu fekkoon bëggul nga def loolu daanaka wax ne bul dem foofu kon yi nga xam ne ni aada la nit ñi garaawaluñ ko nit ñaa ngi génn di dem di eh, def loolu di ñëwaat te kenn aayewul leen. su boobaa loolu jigéen bu koy def soxla wut euh, ndigalu borom këram waaye nag bu mu nekk aada bu ñaaw bu dee génn la goo xam ne nii dañuy xëtt atte sharia yi di fa def lu ko moom bu ko ñëpp aayalut jigéen ji moo ko warul def ndax moom warul moo yàlla benn yoon moo yàlla moom amul fu rafetee waaw mu ne bu dee génn doxi sa soxla goo xam ne nii garaawul faj soxla boobu ñëwaat ci biir te xëttoo atte sharia yi defoo ci moo yàlla génnewoo say awra jaxasoo góor ñi defoo daal lenn loo xam ne ni wute na ak te loolu kenn daaw ko aaye génn yu mel noonu jëru tàggu jëru tàggu <coughs> kon su ko defee yaakaar naa ne dars bi ñu war a jàng leeraal na jigéen génn ngir faji aaju yi nga xam ne nii ci aada daawuñ ko aaye jigéen génn def ko loolu bu koy def jarul tàggoo génn goo xam ne daf koo war su koy def jarul tàggu génn ngir ziyaare ay waajuram wutee nañ ci ndax jar na tàggoo wala jarut jarut tàggoo ñi leeral foofu ne jigéen xataa bu ko jëkkëram fase fase moo xam ne buum ko jeexagut nga xam ne jëkkëram war na ko mën a jëliwaat fasem fayda fekk mu ngi ci edd ja warul génn kër boroom këram kenn it waru koo génne lu mooy mu nekkee fa njaaro walla mu yore fa kàddu yi ñaaw di xas nit ñeeg wax yoo xam ne ni kenn xamut su boobaa mën nañ koo génne waaye bu dul loolu kër gañ ko fase fa la war a des ndax ba léegi jabar la warul génn it génn boo xam ne laaj na soxla na ci ndigal lu may borom kër googu ko fase te edda ji jeexagut moo ko may ndigal ndax ba léegi mooy borom këram <coughs> foofu nag jigéen ñi war nañ di ko bàyyi xel mooy ne nit buñ ko fasee te edda ji jeexagut te fase bi bu mu ko dogut edda ji bu jeexagut sa borom kër ba léegi mooy sa borom kër waaye surtout sañu séq ak yow dara nag waaw waaye nag këram ngay nekk boo génnoon àdduna yow jigéen ji moom daf lay donn moom bu génnoon àdduna yow da koy donn bu fekkee edda ji jeexagul laa wax bu edda ji xasee jeex na buum gi jeex na seqatu leen dara te ci biir edda jooju borom kër gi bu ne damay jëlaat sama soxna kenn sañu sa bañ jigéen ji sañu bañ ay waajuram sañu sañu ñoo bañ loolu it na ko jigéen ñi bàyyi xel jigéen Sénégal ñoom buñ ne fase rek yaakaar nañ ne buum nga jeex na déedéet lislaam dafa tëral ab diir boo xam ne jigéen ji foo mu toog diir boobu mu toog nag na xam ne soxnaay borom soxnaay borom këram la ba léegi borom kër gi moo di borom këram ba léegi fekk edda ji jeexut bu ko borom kër gi bëggee jëlaat moom ak ay kilifaam sañ ñoo bañ ndax ba léegi ñu ngi ci buum ga rek bu edda jeexee nag moom mooy xool ku ko neex mu seel ku ko neexee mu seelaat borom kër googu waaye ci kaw takkaat gu bees ku ko neexee mu keneen. waaye bu dee day amul takkaat bu bees borom kër gi bu ne jëlaat naa sama soxna rek jëlaat ko defee <clears throat> bàyyi xel kon jigéen buñ ko fasee warul génn kër ga <clears throat> te fekk jeexul rek boroom kër gi moo di borom këram ba léegi na koy tàggu ku ci génn àdduna te edd ji jeexagut morom ko daf koy donn loolu na ko jigéen ñi bàyyi xel waaye na góor ñi bàyyi xel ne jigéen du jaam maanaam sa nawle la sa soxna yaay kilifaam gaa waaye nag waaye nag sa nawle la dégg nga yaay kilifaam waaye sa nawle la du jaam am na àq ci lépp loo xam ne sharia def ko koo may muy duraa nga jox ko ko te sëy si ñaari ponk rek la ko sharia teg fa imsaakun bi maaruf aw tasrixun bi ihsaan ñaari charte yooyu la téye gu rafet rek wala ngeen bàyyi bàyyi bu rafet leneen luñ ci dugal rek ñoo ko ci dugal waaye bokkut ca jigéen du jaam kon borom kër gu ne war naa téye soxnaam téye gu rafet su ko mënul mu bàyyi ko bàyyi bu rafet waaye bu mu ko téye di ko bund xataal ndax loolu yàlla santaanul ko fenn su borom kër gi xëttee sharia nag di lor ndaw si benn mu di ko dóor wala mu di ko toroxal di saagay waajuram hmm, di jëflanteeg moom loo xam ne sharia nangut ko muy lor su ko ndaw si mënee muñ baax na mais su ko mënul muñ lislaam daf koy delloo baat bi day delloo ndaw si baat bi bu ko neexee mu dem ci yoon attikat lislaam bi tas sëy ba bu fa attikat lislaam nekkul imaam mooy taxaw palaasam maanaam sëy bi dañ koy tas force même bu jëkkër ji ba bëggut ñu tas ko kon jigéen boo ko yoree nar ko def jaam di toroxal di duma <clears throat> di xas ay waajuram maanaam di jëflante moom jëflante boo xam ne sharia nangut ko bu amee seede su ko seede ne yow yaa ngi koy lor lor wii wala mu siw ñëpp di ko wax di la amut ku ko mën a seede waaye ñëpp ngi wax ne yow da nga koy toroxal yaa ngi koy lor yaa koy def nangam su boobaa lislaam dafay tas say bopp kon jabar du a neexee nga dóor dóor yi nag léegi lislaam santaane dóor waaye nag gannaaw boo jaaree fi nga war a jaar mooy na ko waar bu bañee nga gàddaay gàddaay gi nag bu mat ñeenti weer gàddaay gi daal weer ci gën a bari bu ëppee weer nag may nañ la nga dem waaye bu mat ñeenti weer bu seq ak moom dara bul bokk ak moom lal boo ko gàddaayee ba sonn faalewut la ngay waaj a jege ñeenti weer faalewut nga dóoru dóor dóor yi nag lislaam nee na bu mu damm yàq bu mu bàyyi liquide bu mu xot ci yaram soo ko dóoree dóor yu dul yoon di la benn yoon la am na du laa tas séebu te su tasee sëy bi mënoo koo jëliwaat ndax bu tasee moom tas na jeex na kon du góor saa su nekk moom moom baat déedéet fekk mu ngi jub di tegu ci sharia baat bi ci loxoom la nekk waaye góor gi bu xëttee eh, xaq jigéen ji di ko lor lislaam dafay delloo jigéen ji baat bi kilifa yi tas ko ñu tas say boobu même bu góor gi waxee tasuma ko it tas na <clears throat> kon sart bi foo ñu matal ko téye bu baax. wala bàyyi bu rafet loolu ci àq jigéen yi la bokk lañ ko bàyyi xel bokk na ci àq jigéen yi mooy jigéen kenn sañu ko booleeg wu jëm te neexu ko maanaam jigéen fa muy dëkk fa muy fóotee dégg nga ak fa muy weer yéreem saal bu muy seetaanee ya muy seetaan di noppaloo warul ko bokk ak wujjam dégg kon li ñuy def ci Sénégal nga xam ne li ëpp looloo fi am mooy ay ji ay jël ay jigéen rek bool leen ci biir kër benn ñaar ñett ba muy ñeent aada waaye lu lislaam jigéen ju nekk ak kër boo xam loolu lislaam santaane suñ daakooree nag ñoom jigéen ñi nga bàyyi leen nga boole leen benn kër dagan na ndax nit bu ko neexee mu te mu jël loo xam ne ak xam la teggil la ko loolu am na droit def ko waaye loolu dafay fekk mu neex ko moom jigéen ji bu ko neexee nga boole leen benn kër su ko daakoorul amoo droit di ko forcer di leen benn kër su fekkee it ci dëkk bi ku takk ay jabar da leen boole ci benn kër moom mu ñëw nangoo séy ci ci condition yooyu moog d'accord benn la. su bu waaye li nga def dara nekku ci parce que mu ngi mel ni d'accord na ko waaye daal islam force wut ko ne ko force nga dem bokk ak sa wujj kër te lislaam daf koo may àq ne boo d'accord bokk ak sa wujj kër dañ laa war a wutal sa këru bopp waaw maanaam daal buñ jaxasoo daal man nañoo bokk buñ bokkoon kër it duñ bokk appartement moom ku nekk ak sa mbiru bopp loolu la lislaam santaane bu neexee jigéen ñi nag mu tegg àq boobu dem bokk ak wujjëm kër su xamee ni dafay bokk ak wujjëm kër ba pare mu d'accord ko ñëw sëy si ah ba léegi ay wëy ndax moo ko d'accord rek waaye bu ko d'accordul moom da ko war a wutal kër këru boppam loolu ci àq jigéen ñi la bokk <clears throat> ay duraam la bokk na ci duraam mooy da ko war a dundal dund bu yàlla ci moom ak ci ñam fekk ji jigéen ju nekk la nga ko lam miin dunde yow borom kër gi jox ko dund boobu ak dund bi yàlla ci moromam yi lañuy ñuy dundee lu mel noonu nga ko war a jox dégg maanaam dund daal ça ci fa nga nekk waaw dëkk ba nga nekk la ñuy dundee rek lu toll noonu daal na ko jox jigéen ji muy dundam su fekkee da ngaa takk soxna mënoo koo dundal am na droit ñaan baat. génn ca sëy ba su fekkee mënoo koo dundal bañ euh, nangoo koo fase yoon a koy tas force ndax dafa war a tas imaam dafay tas sëy boobu ndax kat lislaam waxul la nga nekk foofu di ko xiifloo naan ko naan ko naan ko isbiro wa muñ leen muñ laante leen laaye muñ su mu laaye muñ yooyu sëy tox koo jug waaw laaye muñ yooyu ci lépp la laaye muñ waxul la ne teggil sa xàq déedéet muñal la la wax waaye nag du du force nga war a teggi sa àq bu ko defee bu dee da nga takk soxna isbiru wa rek nga mën a nga mën ak moom da dafa weddi laay fekk weddu laay yaa déggul laay yaa ko teg fudul place am waaw <coughs> lekk biir biir dund koy feesal waaye du ay laay dégg teewul nag jigéen su xamee ne góor gi dafa ñàkk xamul dara. mu nangu koo séyal te xam na ne góor gi mënu koo jox dund mu nangu koo séyal sañu tut génn ci sëy boobu parce que moo ko nangu waaye su fekkee daal moom dafa jàppoon ne góor gi am na mën na koo dundal mu dem mënu koo dundal mën naa génn ci sëy boobu moo sëy wax ci dëgg dafa dafa baax ca commencement ba bañ a jaay jom ma ñaaw ba pare dugg ci te mënoo ko nga andi sa bopp problème yooyu gisee ma di ko wax mooy ñu xam ne jigéen. am na droit laaj ak xam su ne dundaluñ ma sëy bi daf fi yem buñ ne dafa bon eh, loolu loolu la ko lislaam may te loolu lislaam may boo ko defee bono waaye nag mu muñ moo gën yëpp ma ko jigéen ñi pour ñu tas seen sëy léegi-léegi sax damay wax ne yu mel nii est-ce na jàng ndax jigéeni Sénégal yàlla xam daana <laughs> waaw waaye nag nëbb xam-xam moo baaxut nit wax ko xam rek soo paree na ko nag wasulhu xayrun ngeen xéewanoo moo gën xéwanoo mooy ngeen fexe ba am jàmm moo gën alxuraan loolu la santaane moo tax boo fekkee dara ci ab réew muy aada ñëpp di ko dund ah dina lislaam may na la lu wuteeg aada jooju boo mënee topp ci aada ji xéwanoo dara nekku ci waaye nag bu la neexee nga laaj ci àq bu la neexee ci kon ku nekk am na duraa xam soo xamee ba pare nag xoolal li gën a rafet nga def ko ndax inna laa yuhibbul muhsinin ci gàttal la may tënk ci darsu boobu mooy jigéen du jaam sëy soxna na wala la da koy jox cëram àndoog moom ànd bu rafet mu jox la sa cër wala hunna mislu allazi alayhinna bil maaruf alquran neen la leen war ci ay xaq xaq yu mel noonu moo leen ñeexel kon maanaam xaq yi yàlla teg jigéen moom la teg góor rek ku nekk dafa war a rafetal jëmee ci moromam rek waaye kenn du ci jaam kuñ ci nar def jaam nag ci lu dul dëgg mën ngaa tasee kon baat nekkul ci buutu bu mu góor rek lu ko neex mu def loolu yàlla santaanul ku aadala rek waaye na jigéen ñi rafetal dégg nga su ko defee jigéen bu génnee nag ci lu dul ndigalu jëkkëram te jëkkëram tooñu ko laa wax ah jigéen jooju mooy na jëkkëram dund sax waratu ko borom këram waru koo waru koo dundal waaye bu ko jëkkëram tooñee am na droit dem <laughs> xam nga léeg-léeg bu jigéen demee bu eh, sëy ba këram mu génn kër ga dem dem dañ naan dafa fay dafa bon ak yaayam musul fay nangam nangam waaw bu ko jëkkëram tooñee nag bu demee da war a xool lu tax mu dem bu dee dañ koo tooñ xamal ne dem googu sharia may na ko càq waaye nag ka muñ toog moo gën nag waaw yi dama ko wax rek pour ne jigéen am na droit pour xam waaye nag nañ muñ am na yoo xam ne yëpp buñ ko defee fii ci aada fekk ci réew aada boo xam ne ni yàlla xam doone boo ko naree dindi si benn bis dañ lay bon loo yow fekk bonoon wallaay kon bu génnee dem te fekk dañ koo tooñ loolu am na ci droit ba léegi borom kër gi moo ko war a dundal di lay génn <coughs> dégg te su fekkee dafa génn dem sax këram te fekk borom kër gi daf ko tooñ su boobaa buy génn di feneen waratu tàggu sax jëkkëram waaw su boobaa <coughs> su nga kilifaam la war di tàggu bañ rek la affaire kon fekk sa borom kër <coughs> mu ngi nekk ak yow ci jàmm di la jox xaq yi nga war a xaq lislaam mm, sant la nga toog fa su boobaa moom nga war di tàggu xataa boo génnee dem feneen it boo bëggee dem feneen jógee foofu moo moo war a may ndigal amma soo nekkee sa kër waajur nag te sa borom kër jotee gut ak yow dara war gut laa dundal su boobaa sa waajur nga war di tàggu di la am nga borom kër waaye jotee gut ak yow yow dara sa borom kërit it bu teggee ay euh, xaqam euh, tooñ la def la jaam ba nga génn dem su boobaa yow jigéen ji boo demee jamono boobu moom dégg nga lislaam may na la nga génn ba yi ngay def jamono jooju sa jur nga ci war a tàggu dégg nga ba jigéen ji delluwaat ci góor gi delluwaat charte yi tax mu nekk kilifa ñuy door ko delluwaat kilifteef te mooy fa imsaakun bi maaruf te du tee moo la war a dundal ne moo la tooñ <coughs> loolu lay wax ne baabu laa taxrujul maratu bunt bi jàngal na jigéen du génn min baytiha ci këram illaa bi izni zawjiha lu mooy ci ndigalu jëkkëram felam yazan bu amul ndigal la may jus daganul alxuruj génn jigéen daal bu amul ndigal amul dura génn xan ibnu omar yélee nañ ci ibnu omar qaala wax na ne nekkoon na imraatun ak jigéen li omar ñeel omar te chadu di seede salaata subi julik suba wala incha gaye fil jamaati ca mbooloo ma fil masjid yi ca jàkka ja omar ibnu xataab dafa amoon soxna suñu doon wax atikatu bintu zeyd mbokkam saïd bun zeyd saïd moom kenn la suñu dig fukki ñu digoon aljana ndaw soosu dégg nga daan julli suba ak ca jumaa ja fa qiila ñu wax la añeel ko ne ko lima taxrujiina lu tax ngay génn waxat taalamiina te xam nga ne anna Omar naka Omar yakrahu dafa sib daalika loolu wa yaxaaru dafay fiir ndax góor kër yàllaa ko bindee loolu dégg nga ñu ne ko lu tax ngay génn te xam nga ne Omar bëggut génn gi te dafa fiir ci ngay dem ak dikk xaalat <clears throat> ndaw si ne wa maa yamna'u lan moo ko tere an yanha mu te lan moo tee mu aayama <clears throat> qaala mu ne yamna'u dana ko tere qawlu rasulillahi wax laa tamna'u bu leen tere imaallaahi yu jigéen yi masajidallaahi jàkkaa yàlla dégg nga mooma ñu ne ñu ndaw si ne lan moo tee mu aayama mu ne lu tee mu aayala mooy li yonente bi sallallahu alayhi wax ne bu jaami yàlla yu jigéen yi jàkkaay yàlla yi kon boo demee ba mënu aayal sa soxna mu dem jumaa ja jumaa ja moom li gën mooy bul ko aay boo demee ba mënoo ko aay mu dem jumaa ja defal ni Omar def nee nañ Omar moo wax lii am na ñu ne keneen la ne xadis waxee dafa mel ni dafa am wax ak ndaw soos di Atika waaye da am ñu ne Omar wax lii moo ñëw ne lu tax dem jumaa ja te xam nga ne dafa sib def ci fiir mu ko loolu moo tax Omar a te dafa mel ni place keneen la taxaw fekk moom mooy moom mooy Omar moom mooy wax mu ne ko du tee mu aaye ma mu ne ko du tee mu aaye la mooy lu yonent wax ne bu leen aaye jaamu yàlla yu jigéen ñi ñu dem ci jàkkaay yàlla jàkkaay yàlla néeg yàlla kenn du ko aaye jaamu yàlla <coughs> su ko defee kon wane na ne euh, jumaa ja comme que jigéen toog di julli ci këram moom moo gën xam nga du daan sa soxna ba mu toog ci kër gi di fa jullee waaye nag du nekk loo xam ne danga ko ci jaay doole di ko ci forcer ndax loolu duraa am la xam la dégg nga <coughs> ko defee kon kilifa gi walla borom kër gi mooy kilifaay soxna ci fu mu war a dem rek daf cee war a daf cee war a am ndigal jigéen daal dafa war topp jëkkëram di diisoog moom xataa buñ ko fasee fasem fayle dafa war di topp borom këram dégg nga <clears throat> su fekkee nag fase mi fàcc na mën naa génn te ci e, ndigal waaw ndax fase mu comme nga fase ko ñetti fase ko seqatuñ dara même bu eddi jeexul bu ko neexee mu génn jigéen ñi boo ko tooñee am na du laa dem kër waajuram kilifteef gi nekk ci loxo waajur yi ndax yow doonatoo kilifa kilifa li taxoon nga mat kilifa mooy mooy lañ la santoon fekk yaa ngi ci sàrt bañ la sàrtoon waaw bu mbir mi nag mu ñëwaat su gi delluwaat ci sa loxo hmm. kon <clears throat> waaye nag lii lépp maa ngi wax jigéen ñi ne wasulhu xeeru defar moo gën defar moo gën am na yoo xam ne boo ko naree dund ci réew moo xam ne am na luñ meñ eh, dañ la bonloo te fekk bonoo إن أريد الإسلام ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته